salaamaaleykum amis et fidèles internautes salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a bàyyi xel ci kër gi nga xamante ni moo di kër Mouhamed ña ñu ànd ak moom wara waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu boo xamante ni euh, lépp loo xamante ni def na ko ci carrière ba fii mu yegg si tey waaye tamit ñu focus waxtaan bi euh, ci li nga xamante ni moom la bëgg a génne ci màggalu Cheikhul Khadim gi puissance 3 puissance 3 doon mbir moo xamante ni yëngal na àdduna ndax ku ne xam na ni Mouhamed Niang ci màggalu Cheikhul Khadim gi nga xamante ni moom la ñu jëm def cee am baat baat bi mu ci am nag mooy kàddu yi nga xamante ni moom lay yëkkati di tagg Seydouna Mouhamed waaye di tagg Cheikhul Khadim jagleel ko Serigne Saliou Mbacké borom jurul borom jàppandal borom dooka borom jawaan nga ci roon xëy ga sangub Cheikh Béthio Thioune bàyyi Serigne Cheikh Saliou kani woon jox leen ma ndaw ñi def la Serigne Bamba defoon ca mag ñi doon téyew ma ko ma barkeeloo ko waxtaan bi nag du ma ci wéet benn yoon dama cee ànd ak samay naataango euh, waaye nag liñ naan góor góor gis am na jigéen gu nekk ci wetam damay commencé ci jigéen bi soxna Fia Saliou maa ngi lay siyaar bu baax a baax di la jox sa wàcc. ayca euh, Abdou Saliou maa ngi lay fay di ziar Mouhamed Alboura ak Moussa. di nuyu internet bu baax a baax a baax comme ni ñu leen ko waxee rek tey nag ki ñu dalal euh, nekk na koo xam ne icône la euh, ci waykat yi waaye aussi si jàngkat yi kenn dootu leen ko présenté xanaa ngeen taaxeerlu rek tubaarikàlla ñu fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne rek njëriñ la. macha allah euh, waxtaan bi nag nee naa la dina riche ndax ay taalibe Serigne Saliou doo nga fi toog ci wet gaga ñi nga am ko nga xamante ni moo di alburax moom Serigne Saliou moom Cheikh Béthio Thioune. Hmm. alburax ñu ngi lay ziar. waaw Abdou maa ngi lay delloo ziar di nuyu bu baax Moussa Fia maa ngi lay nuyu. di nuyu bu baax itam Mouhamed Niang ñi ngi lay euh, nuyu bu baax di la beral nuyoo itam euh, di la sant itam ci euh, ni nga ñu taamoo tay ñu war amal jotaay bi lee. macha allah ci gënal wet gi ma ngi ak suma xarit le jeune frère Moussa Saliou mom Serigne Saliou. jërëjëf Abdou Saliou ma lay gërëm bu baax a baax di gërëm également suñu bokk internet yi nga xam ne actuellement ñu ngi bu baax a baax di leen sargal bu baax a baax ci weeru safar gi ñu ne nga xam ne actuellement ñu ngi waaj màggal gi ngir dem Touba. Set essentiel euh, plateau puissance 3 ñu ñu wara a waxtaan ci euh, trois sons yi nga xamne wax deug yalla jamono gi mi ngi yëngal bu baax baax li nga xamne mo mo di Sénégal daan ci def benn plateau bu spécial gën leen mëna décortiquer wo yu am solo yi nga xamne mo Mouhamed Niang woy nako légui légui lay doon ci buñu addo ngeen ñu bayyi xel inshallah allah macha allah gi rafet ñu nuyu ki nga xamanteni ni waral jotay bi mohammed Niang mom Cheikhul Khadim mohammed Niang mom Serigne saliw mohammed Niang mom Cheikh Béthio mohammed Niang mom Serigne Cheikh saliw ñi ngi lay dalal di la wax assalamu Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum adina. assalamualaikum. Bir rew bitim rew. Ma ngi nuyu ñep fu ay nek ci Adina bi Ma ngi lay jox sama loxo di la siyaar ak di la ndokkale ci wéru tedd wi nga xamni ci lañu nek. Deugmal magluk Serigne Touba bi Ma ngi jital ci bi nak Cheikh Mohamed Mountakha Bachir. di ko ñaanal mu yàgg fii loolu ci ànd ak wér ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou suñu wasila suñu bunt ci fa Serigne Saliou ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fii ñaanal njabootu sëriñ Saliou gépp ak njabootu Serigne Touba gépp Abdou maa ngi lay nuyu. fii daal tey samay bokki taalibe rek a fi teew ndax ba ma fi toogee ba léegi ay saaliw rek laay dégg macha allah macha allah saaliw ah fiyaa saaliw alburax saaliw alburax saaliw musa saaliw musa saaliw jotaay bi daal xam naa ne dana neex moom dana neex incha allahu rabbi yéen a ko déggandoo jotaayub Serigne Saaliw la waaye nag Euh, fas yéene waxtaane lépp loo xamante ni dinañu jural njariñ waaye dina jural ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel à travers euh, ci chaîne bi nga xamante mom moom lay daw muy chaîne Mouhamed Niang waxtaan bi nag euh, moom moo choisir ay nitam yu nga xamante bëgg nañu def ko te wax dëgg yàlla yaakaar naa ñi mu choisir ñëpp ci seen bërëbu liggéeykaay ay ndaanaan lañ fa ñu doon ay nit ñoo xamante ni ñu am kàddu bu ko defee Moussa ma bàyyi leen ngeen tijji waxtaan bi eh, ndax ku ne xam na ni Mouhamed ñaar jamono bi mhm. àdduna wërngal këpp a ngi koy xaar ndax war naa génne ñetti son mhm. benn bi daf ko clip waaye ñaari actuellement ay single lay doon waaye bala ñu dugg ci waxtaan boobu mhm. euh, naka ngeen gisee mbir yi nga xamante ni Mouhamed def na ko parce que ku ne xam na ni euh, Mouhamed bu màggal gi teroo àdduna wërngal képp a koy xaar ndax son yu neex yi nga xamante ni moom lay génne di ci tagg Cheikhul Khadim waaye di ci way ki nga xamante ni moo di sangam ba Serigne Saliou Mbacké mhm. dèjà muy euh, projet bu am doole boo xamante ne man beetu ma bettuma dans la mesure moo Mouhamed Niang waxuma sax waxu màggal c'est un artiste boo xamante ne tey mhm. booy natt tolluwaayam ak dimension actuellement fi mu toll tey koo xamante ne bi muy door en 2003 parfois sax ça m'arrive may delluwaat di ñëwaat 2003 bi muy jàkkaarloog seex bi. Mm. muy lu am solo li nga xam ne parfois boo bëggee xam jéego yi mu def il faut ñuy delluwaat ci ginnaaw. Mm-hmm. di xool nit ki li mu liggéey pour ensuite mën a di xam bu baax a baax li ngay wax ci carrière macha allah booy xalaat fi mu jógee 2003 ba tey mu ñëw ba fi ñu toll ak liggéey bi ni ñu ko moderniser il faut dire que ni. Mm-hmm. liggéey bu am solo la def te jàmbaar la ba fi mu toll. Mm-hmm. beneen bi muy benn projet boo xam ne daf ko teg. man daf may fàttali projet wu àdduna bi sori na la muy mm-hmm. album bu dis boo xam ne daf ko génnee mm-hmm. jusqu'à présent muy wër ba tey di def yoonam ndongo daara mm-hmm. muy album boo xam ne jusqu'à présent booy xool day son boo xam ne jusqu'à présent bu ñu ko toppoon ba tey ci son bu ci nekk œuvre la te ba tey même même bu ñu toogaatoon di ko déglu sax da ngay jàpp ni Mouhamed bu yemee fii fii lay soor a te fii la fii fii la jeexale donc bu mu ñu inlaatee benn projet EP sax laa ko mën a tuddee ci mhm. màggal bi nga xam ne dañ ko doon xaar te mu mënoon yem rek ci benn son mhm. mu ñëw génnee ñetti son ba noppi defaat beneen clip kon murid yi ak àdduna bi yëpp amel nañ ko njukkal macha allah macha allah alburax waaw jërëjëf Abdou maa ngi gërëm bu baax Moussa je pense que euh, li ñu bëggoon a wax ci Mouhamed Niang wax na ko dafa fexe ba marqué empreinte am maanaam fexe ba bokk ci euh, waykat yi nga xam ne bu màggal tero wala gàmmu wala 17 avril lu mu ci mën di doon dañu koy xaar ci ay woyam yu neex ren ji nag mu beral ñu loxo nam ñu beralee loxo moom mooy dafa génn ñett yoo xam ne nii boo ci déglu rek bekk ñett yëpp tubaarkàlla boo ci bekk kontaan lool boo ci déglu itam da xam ne ndaanaan ba doon woy démb moo kon ne di woy ba tey te woyam bu bu génn bu nekk rek nga naan ah moom lool ko woy bii nii kon mu ngi ci lancé boo xam ne ni euh, wax nga ko sànq ñi ñaan sénégalais yi wala sax ñaan àdduna bi yëpp ñu gën koo bàyyi xel te ñaanal ko itam yàlla gën koo sàmm aar ko wéral wéral li nga xam ne moom mooy baat bi et c'est très important en tout cas ngi koy félicité bu baax di ko gën a ndokkeel bu ñu gënee dugg ca waxtaan ba dinañu leeralal exactement puissance 3 ndax nag puissance moom am na 1 am na 2 am na waaye 3 sëñ Bamba bari doole. Pia. ayca euh, euh, comme ni ñu koy waxee rek euh, Mouhamed duñ fi nekkati di toog di wax mën a wayam c'est-à-dire man dama nag chaque fois su ma koy déglu dama nag Mouhamed inspecteur la. li tax ma tu ko inspecteur dafa nekk nit boo xam ne day chercher day gëstu malgré bu enquêté enquête bi te ko day jël pause mais terewul mu bàyyi da koy daal di continuer su may déglu wayam dama nang Mouhamed wayatul. malgré lu muy woy neex na mais man su ma delloo 2007 2008 dama naan Mouhamed jamono yi la doon way parce que jamono yooyu woyam boo koy déglu euh, parce que ñun ay xale lañ fekkee ñu jëfi Serigne Saliou li fi bàyyi rek lañ fekkee mosuñu koo gis mosu Cheikh Béthio Thioune gis nañ ko waaye tax na ñu xam li xam ne mooy liggéeyu Serigne xel Khelcom tax na tamit ñu xam li xam ne mooy Cheikh Béthio Thioune li mu def li tax tey ñëpp nag Cheikh Béthio Thioune mooy Serigne Saliou Serigne Saliou mooy Cheikh Béthio Thioune Mouhamed daal comme ni ma ko waxee mooy inspecteur. macha allah euh, kaddu yi am na solo Mouhamed ñu commencé waxtaan wi. Mhm. loolu mënut a woon a ñàkk ñu def tour de table. pour mhm. xale yi wax li nga xamante ni moom la ñu euh, xam ci yow euh, waaye Mouhamed question bi jiitu mooy dama la gis 17 avril. Mhm. ndax xam nga ni dañoo jógee ci 17 avril dugg ci li nga xamante ni moo di màggalu Cheikhul Khadim bi ma gis la 17 avril. nga def mbir moo xamante ni gëj nga ko def taxaw ci bâche way wayu démb lan moo indi inspiration boobu ak lan moo indi pexe yu bees yooyu nga xamante ni indiwaat nga ko ci cant gi nga boolewaat xale yi nga xamante ni ñoo nekkoon démb ak ñi nekk tey wayal leen wayu démb comme na nga ko daan defale Cheikh Béthio Thioune jaajëf ci laaj yu am solo yi euh, ma ñëw rek ci foofu ngeen dugg muy 17 avril bi mhm. buñ ci demee xel yëpp day dem ci Serigne Saliou ndigal Thioune mhm. mi nga xam ni moo fi wuutu Cheikh Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou ñu ngi koy ñaanal macha allah yàgg fii te yeggali naal ak yéene yi nag ku ne xam na ni euh, bis la boo xam ni man dama ci am cër mhm. cër bi ma ci am mooy ku ne xam na ni Cheikh Béthio Thioune jaamu Serigne man bi nek goné di am 14 ans ci dama dalal ba jangal ma way cheikh bi euh limay wax nan cheikh bi moma jangal way waxumako pour wax ni rek waaye dama bëgg suma koy wax Sénégal gépp xam fi may waxé ak bàyyi ma moy mhm. euh légui la sax xam bi ci jamono yu mujj yi boobu dem nañ ba mbolo mi bari xat-xat yi am lu ci bari sëriñ bi sax xoolatu ko waaye ci boobu jamono nga xam ne man door naa di way boo mësaana indi way cheikh bi boo woyee ak lu mbooloo bari bari bari bari soo waxee nu dul noonu dalay corriger ci biir mbooloo bi day jël micro bi lii nga wax sëñ Saliou waroo koo wax wala nii nga waxee sëñ Saliou sëñ Saliou ëpp na loolu wala nangam sàng wala sàngam maanaam man sëñ Béthio daf ma jàngal way noonu la ma toppee nag topp ma di ma topp gisatuma cheikh bi di ma corriger ci wàllu way mhm. nga xam ni dem naa ba benn jamono ndax bu ma woyee way balaa ma koo woy ci baas dama koy woy ci kanamam ba mu dégg ko ba pare dem naa nag ba yëg naa ci sama xol ni cheikh bi mënatumaa corriger ci way te loolu moom moo ko def ci man mhm. xam-xam boobu ma xam ne kon kii fii la bëggoon ma agsi fii mu soog maa bàyyi nag ma demal sama bopp yar googu nga xam ne yar na ma ko ci ndaw dama cee am ay marque yu ma ci def yu bare bari bari bari bari ci événement boobu loolu moo waral 17 avril bu ñu waxee diggante Serigne Saliou ak Cheikh bi ndax dama naan def saa événement bi teroo rek ma woy ci comme nii événement yi niñ ci woyee lépp mhm. ba mës naa cee woy woy wu siw boo xam ni moom sëriñ bi ci boppam da koo bëggaloon boppam mm-hmm. muy ma jóg fàttali leen taarix euh, moo tax bi ma taaw bu baax bi invité ne ma nag ah xam naa ni xat nga xam naa ni jamono tënk na la waaye dama bëgg moom 17 avril moom fu mu la mënti fekk moom bàyyi ko nga ñëw ànd kook ñun euh, xam naa ni li soxna si di wax léegi ne Mohamed ñaa booy déglu wooye bu njëkk yi sax da ngay xam ni woyatul léegi euh, jamono bi nga xam ni cantaakon maa ngi koy wax ci woy yu bees bi cantaakon léegi xëy na peut-être yomb na doon ko waaye am na moment boo xam ni doon cantaakon yombul yombul jaayante la laajoon mhm. da daan nekk ci famille rus sax wax ni yow cantaakon nga mhm. da nga doon ruus sax di wax talibé Cheikh Béthio la da di ko ruus di ruusoo wax ni yow talibé Cheikh Béthio parce que bobu Cheikh Béthio am na lu mu indi ci yoonu mourid lo xamni manam ñu bari comprendre nuñ ko xamuñu ko moy li dalon Cheikh Ibra rek ci biko serigne bi feñal té lolu à chaque fois fay am ndax ki nga xamni yalla da koy jox mu wara indi lu bees yeesal kooku sa bu da fay indi lenen ki yeesal fay indi lo xamni lim fi fekk dara du ci soppiku mais dafay indi leneen lu yees lu ci dolli loo xam ne suñu borom moo koy jox mu yóbbal yóbbal boobu nag saa bu ñëwee ñi fi fekkoon te xamuñu loolu dañuy jaxle waaye ñi am xam-xam te xam suñu boroom du ñu réeroo mukk ak yóbbal boobu mhm. yaa ngi dégg bu baax loolu moo waral euh, cheikh bi feeñ ak ni mu feeñee cantaakoon xew foo tourné ci dëkk bi ñu naan cantaakoon foo foo dem Serigne Saliou am baat bu mu ko wax mhm. ne ko ah, man dey way jur yi dañuy jóge ndakaaru di ñëw ci man di ma joytu seen doom yi ni ñu mel te ma bëgg nga dellu ndakaaru jàngale am murit nan lay mel ci boobu jamono loolu moo waraloon tournée yi Cheikh Béthio daan def te loolu ñu bëri comprendre luñ ko woon. Mhm. tournée boobu da cee amoon ndigalu sañ Saliou sëñ Saliou moo ne ko woon wëral Sénégal nga wone nan la ab murit di mel. ci yooyu jamono nga xam ne nit ñi dundu nañu ko te mu metti woon loolu loolu moo tax bi ma ñëwee 17 avril ma ne ñii su ma fi woyee woy yi nga xam ni. jamono la te jamono miin nañu ko peut-être ñoom duñ ko mën nañ koo bañ a dégg. Mhm. waaye su ma leen wooyeelee ñoom fa ñu nekk li nga xam ne dund nañ ci te jaar nañ ko dinañ ma dégg ma fàttali leen li nga xam ne ñun ñoo ko doorandoo ndax woy bi ma ko daan fent ci seen kanam la. Mhm. bi ma ko daan woyantu ci seen kanam la. Mhm. moo tax su ma ko woyee rek da ngay gis ni ñuy yëgee seen bopp. ak ni ñuy giseen seen bopp ci yëf yi. woy nag dafa rek mbir moo xam ni. nit da koy déglu mu am fu mu la yóbbu am lu mu la fàttali. Mm-hmm. ci yooyu jamono ci moment bi mu lay fàttalee mën ngaa jàpp ne sax yow maanaam mu nit mënatu la lu féete lu féete kaw lii ngay déglu. Mm-hmm. te fekk du loolu daa am lu fu mu la delloo foo xam ne yi ngay déglu delloowul. Mm-hmm. way looy yu bari noonu la ñuy def. moo tax bi ma ñëwee di 17 avril. mu mu mel noonu cantaaku ni xam nga leen seen bëggum Serigne Béthio <laughs> bëggum Serigne Saliou moo waral ndeysaan ñoom it ñu bëgg ma mhm. macha allah cantaaku ni dañu maa bëgg am cofeel ci man cofeel googu nag ci cheikh bi la njëkkee mhm. ndax xamoon nañu mhm. ci mbooloo balaa xol baa sedd mu ne ana Mouhamed Niang loolu dem nañ loolu gars yi dañ ma koy dañ ma koy sax tooñee noonu daal la la la demee Alburax ah jërëjëf euh, Abdou Saliou xam nga dafay baax itam de fois ñuy euh, fàttali taarix maanaam di fàttali démb bu defee ñi seetaan mën a comprendre exactement Mouhamed fa mu jaar ba fii mu yegg si tey xam ne li ñuy faral di wax à chaque fois yàlla bi joxe du ko wàcc directement dafa am fu mu koy jaarale voilà noonu la noonu la demee ñu ngi koy euh, félicité waat bu baax laata ñuy tàbbi ci waxtaan bi Abdou noo ko bëggee rek allah noonu lañ koy defee. <laughs> macha allah macha allah. Euh. voilà man bëggoon naa ñëwaat ci leen comme sénégalais yi déjà yaa xamti nañu ñu décortiquer leen EP euh, e bi nga xam ne indi na ko noonu laa ko mën a mhm. tuddee ndax euh, puissance 3 lu am doole la fi mu bëggee ñëwee rek mooy Mouhamed naka lay yëgee yenn ci ay kàddu yi nga xam ne mi ngi jógee ci sénégalais yi c'est-à-dire te di nga dégg sax koo xamante ne day naan man murid laa waaye bi may miin Serigne Saliou ci ay kàddu moo xam ne laa ko laa laa ko laa taataanee ba miin euh, Serigne Saliou wala yenn saa yi nga dégg nit ku ne man tiijaan laa waaye dama bëgg Serigne Saliou te Mouhamed Niang moom moo tax wala sax nga dégg koo xam ne dala naan man catholique laa mais dama bëgg Serigne Saliou à travers Mouhamed da nga koy gis ci ay commentaire am parfois wëyi bu duggee wala ay kàddu yoo xamante ne da koy jot naka lay yëgee mm, étant wëykat ba noppi doon missionnaire u Serigne Saliou te sax du ko yëg ci ay kàddu yi nga xam ne day jógee ci sénégalais yi muy ñëw ci moom waaw mbégte rek lañ ci am ndax way bi ñuy door di ko def sax xamuñu woon lu ñu ko def defloo mhm. dañoo jug rek ne ci mais sunu borom moom li muy dogal ci jaamam noppi na ci dëgg la damay dellu tuuti rek ci balaa ma yegsi mhm. pour wax ñépp ni hasard amul sama jur wu góor daf may nettali man bi may ganee àddina Euh, dafa tok salam di setan ben khadir buy way bobu sama wajuru jigen tollu diggante bi mu jàkkaarloo bi di way di way yenente bi ba sama papa fi mu tok ci saal bi alu ci lenene gan gi de bu wacce yenente bi la koy tuddé kon li li li feñ ak li li sunu borom limuy def euh, day day day leer loolu moo loolu moo lay gunge. mooy dox tey ba Mouhamed Niang dem ba jàkkaarloog sëriñ bi dafa am mbir yoo xam ne bu ko sunu borom di def dafa am ci lu mu koy jaarale. dëgg la loolu moo dox tey ba ma am tawféexu toog sëriñ Saliou ba mu jël mbiram def ci man loolu ci foofu rek laa doon ñëw pour leeral la. leeral la loolu. du hasard mhm. léegi ñu ñëw ci ñi nga xamni dañuy commentaire wala parfois sax nga dox nga nit dab la ne la man de duma sax julit waye man dama lay déglu parce que li ngay wax daf may jariñ donté sax duma julit waye li ngay wax dama ci def nga gis ni euh kaddu gi ben kaddu rek la moy ñi mësa wotel yalla ñepp ben kaddu la ñu Serigne saliw nak lool la réussir ci ndaw ñepp mooy li Cheikh Béthio di wax Serigne Saliou Ambilane mhm. mooy li may wax toujours duñu ci dara Serigne bi mooy jaar ci ñun di wax mooy jaar ci Moussa mooy jaar ci Abdou mooy jaar ci ñëpp kenn ku ci ne mën na sax bañ a nekk ay way mën nga toog ak nit sax amul baat boo wax ak moom mu jaare fa bëgg Serigne Saliou wala gëm ko ba faw mhm. loolu mooy missionnaire bi nga xam ñun ñëpp doon nañ ko mooy ambulant bi mhm. loolu nag laa laa yëg ci way yi ñuy way mooy sëriñ bi daa jaar ci man ngir dimbale ndax am na loo xam ni xel la mm-hmm. am loo xam ne du am xel lii nag dem naa ba xam ne nag du am xel mm-hmm. moo tax ci sëriñ bi rek lañ koy delloo <laughs> ah, day leer na naa ñi mm-hmm. soxna Fia man moom euh, sëñ Abdou comme ni nga ko waxee woon dafa am man moom boo xam ne dama ko koy laaj parce que loolu dafa ma dama yàgg a toog rek di xalaat ne kañ laay toog am envie laaj lii Mouhamed Niang muy euh, ni muy ni muy gëstoo ci ay kilibam da koy jaral mu fons dem dëkk dëkk da koy jaral mu jël jaar-jaaru Serigne Touba da koy jaral tey kii xam ne ne moom lay woy mu xam kooku moom mooy kan d'abord parce que tey ñëw woy rek neex na mais nga xam ki ngay woy d'abord fan la juddoo fan la jaar lan moo tax dëkk bi ñu tuddee ko nga génn benn clip bu rafet ci Serigne Abdou clip boobu nekk na loo xam ne du ma yeew wala du ma tëdd te dégluwuma ko mais nekkul way bi am personne mais fi nga tourné clip bi fi nga jaar ba tey de tey yaa ngi mel ni yaa nga dëkku Cheikh Abdou Lahad ñi xamul woon kan mooy Cheikh Abdou Lahad xam ko euh, lan moo lay inspiré booy tourné clip bay wane ne taaru taaru ki ngay way fa mu dëkk. waaw lu am solo xam nga man damaa jàpp ni way way du du caaxaan ndax boo xoolee. ki nga xam ne ñun ñëpp moom lañu ñu yaakaar gëm ko wóolu ko doyloo ko muy Serigne Touba li ëpp ci ak dundam ci tagg yonent bi la ko def sallallahu alayhi wa kon woy mbir la moo xam ne bu ñu nit bu jugee ba war a def way muy yitteem da ko war a jaarale ci yoon teg ko ci xam-xam fonk ko nu raw nit nit di fonke métier man fofu la né moy sumay may tay suma su di way lampe bi, da na fexé ba xam fu lampe bi da na fexé ba xam ciosanu lampe ak lan lañu ko teggé ba tay mu mëna tak ni ba mëna a man nonu lay way lolu mo waral bima ni damay way Cheikh Abdoulaye ma gëstu ko donte am na lu ñu ci jot xam ndax ku jaar ci daara jaar kër Serigne Saliou xam nga diggante Cheikh Abdoulaye Serigne bu sëriñ Saliou seen diggante baatit bi ci nekk. Serigne Saliou daan na wax naan man Cheikh Abdoulaye lenn lañu waaye lu naqaree xam la. loolu looy naqaree xam nag mooy baatin yi ci ne te umpuñu ñun ñëpp moo tax bi ma jugee di ko way te mu nekk nag loo xam ni. nit mën naa way ba bàyyi way te du way te du dugg foofu ndax Cheikh Abdoul Ahad neexut a way li tax neexut a way mooy li ma wax léegi ndax xam-xam yi da ci am ay xam-xam yoo xam ni yu ñuy wax la am xam-xam yoo xam ni kenn du ko wax ndax boo ko waxee nit da koy dégg weddi ko alku ca te xam-xam ba ca yàlla la jóge kon boo ko waxee rek yaa ngi lor ka koy dégg te di ko weddi moo tax am xam-xam yoo xam dee su ko wax dootul nekk ndimbal loolu moo waral nag li nit ak li nopp mën a dégg ñu tëggee ko ci cosaanam mooy ñoom seen fan yi ñëpp xam nañu waa Serigne Saliou Cheikh Abdou Lahad ña nga bawoo Mbakol mooy seen cosaan te Mbakol di cosaanu boroom xam-xam ci la dërëmaan li ko wër lépp ay nit yi yàlla ñoo fa bawoo toppi Serigne Touba ci loolu lañu dem nag moo tax bi ma wooyee woy bi ma ne gaa ñi ah wayu kat balaa moo am sens faw ñu dugg Bakol ndax eh, bari na murit yoo xam ne ñu ngi dégg Cheikh Abdoulaye te xamuñu fuy cosaan ñu dem Touba d'abord université bi nga xam ni moo ko moo ko tàmbali te tey macha allah is bu tarxiyee yi yeesal ko nii ñu ko def Cheikh Mountakha Bachir ñu tuppee ko ko fa la ñu tàmbalee fa la ñu tàmbalee euh, def fa vidéo bi ngir wane jëfam jóge fa nag daal di dem Mbakol ay kilomètres yu bari ndax diggante Touba ak Mbakol defe naa 45 kilomètres la te yoon wi tax koo demee noonu sëriñ bi nag defal ñu taw tawféex ñu dem fekk fa nag mbir yu baatine da ngay gis rek ni limay wax toujours rek ni mission bo ci nekké sunu borom di la ko dox loo moom mo moo lay dimbali yombalal la lepp ngi dem fekk fa euh, kilifa yu bax ñu dalal ñu ndax euh, bërëb yoyu ay bërëb la yo xamni ne ñi ko sanc sax biñ ñu koy sanc dañoo juggé ci ci nit ña mhm. fa ciow la am ñew ba ci digg àll ba sant fa ngir mëna yegg li seen jaamu yàlla bu fekkee da ngay way di def comme ñu mel ñi ñi def soo fay dugg lu leer mu la fay dugal bi ñu ñëwee nag ñoom fekk ñu yàgg ñu ñoo topp yàgg ñoo bàyyi xel xam ne li ñuy wax it lu suñu lu Serigne Saliou nangu la lu ànd ak lislaam la lu lu ànd ak alxuraan la. macha allah ñoo ñu ubbil bërëb ya. Mhm. ubbil ñu lépp ba lépp lu ñu bëgg a jël ba ci bërëbu sëñ Modou Asta Jaxate bi nga xam ne. fa lañ ñoom ñëpp fa lañ fa lañ tëdd mm-hmm. ba ñu ubbil ñu bërëb yooyu ñu mën faa dugg siyaar loolu nag ay tawfeex la yoo xam ne euh, jàpp naa ni euh, yoon wii ñu aw mm-hmm. tamit yoonu sëriñ bi moo ñu may loolu wax sëriñ Abdul Ahad waaw dama du ko laajte loolu doo doo ko waxee noonu Mouhamed loolu ñun sobo ñun ñun dofe wuñ doon sax nga ñu koy waxee nii rek il faut que nga yëkkati ko waaw murit kenn ko laajte sa jëma bàyyi laate Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yaa sellal doxinu yoon we déglul ma marsi yaa leen woyati dëgg yee leen ku dégg yàlla kañ na turam ba ama jëse sin la ba njaareem la tasul yaakaar ya Cheikh Bamba ko kañ leer na l'islam keroog la jaayu ngir mbégam alu jambar yon wangi bayla te ngi ñewna nes mu dale jangam mo karawi kangam alquranam ga mo man xaaroon bayan leram ga diraya takhdu jumti aya Syekh Abdullah Lai مو خم يلا خم اجوم بأكل كل دك يلا خلين جم ميونو سنتين يلا بروان يا خاتي با اسمان تفين بأكل سرين فين ساليوك شيخ عبد الله سيرين صايب فنياري ليري يلا وانا باتي نم بميونو soxna jëng si la libaas sëñ Moodu Asta Jaxate mataar saa fura ma sancu wan ñaxal ak ninde mbokkum saata yaa ngi ci la dara maan sa kër la maam libaas libaas mataar nunde ak waala pee soxna Faatija yal na yàlla dolli ngërëmam macha allah macha allah xam nga lii eh, mënu cee ñàkk ndax eh, boo toogeek eh, ay ndaanaan nga doon ndaanaan aussi tamit ay ndaanaan nekk ci ginnaaw. ma koy sant parce que réplique boobu man fi mu toll nii voyagé naa ndax man booy wax ci Serigne Saliou rek man maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci yeneen jamono. Abdou laata ñuy ñëw ci puissance 3 dama bëggoon xam itam woy bi mu ko woyee ba pare c'est-à-dire yan retour la ci am envers ci wala sax ci famille sëñ Abdou Lahad leneen li ma ci bëggoon a potax lu itam mooy gis nañu. Euh, woy bi yemalewu ko rek ci euh, woy mag ñi waaye yaa ngi feeñal leneen loo xam ne peut-être yow rek lañu gis ci ay woykat yu koy feeñal lu ca mel ni Touba ca kanam gis nañu liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko Touba yow yaa ki ko feeñal liggéeyu Sëñ Bàmb fii ci Ndakaaru Njaay di Masaalikul Jinaan gis nañ itam woy wa nga fa woy mu neex lool ba boo koy déglu doo bëgg sax mu jeex ak yeneen ak yeneen ba ca fële nga xam ne moom mooy Daaru Muxti sañ euh, Asta Mbàkke sëñ Modou Asta Mbàkke su ma jëmul voilà ak yeneen ak yeneen gis nañu yemoo rek ci woy Serigne Saliou ndax yow fa ngay tàmbalee waaye fa ngay euh, yem itam dañ ci boole leneen mbóot bi lan la. xam nga ñun bi ñu jugee ni dañuy dañuy woy rek faw ñu am tegtalukaay mooy royukaay. Mhm. ñi ñuy roy ci wàllu woy ci yoonu murid ñu ne mooy mag ñi daan woy Serigne Touba sëriñ Moussa Ka sëñ Bay Jaxate sëñ Mor Kayre ñooñu nga xam ni dañu daal woy sëriñ bi te ni ñu daa wayee sëriñ bi mooy xam nañ ni sëriñ bi moo nekk fépp mhm. sëriñ bi mooy seex yi mooy doom yi mooy taalibe yi mooy jëf yi ñun ci yoon woowu la ñu jaar mooy koo mën a foo koo mën a woy ci yoon wi ci sëriñ bi la jëm ndax la ne ci moom sëriñ bee ko def ci moom mhm. loolu moo waral euh, ku ñu jugit ngir woy ko woy wi day daal di yomb ndax dañuy xam ni cosaan la Serigne Saliou la waaw ñu ñu waaw ñu am ci nag mbégte mu kawe ndax képp kuy mbokkum Cheikh Abdoulaye woo na ma waaw ma ci sant bu baax nag euh, Baylaat Say di doomi Serigne Cheikh Say moom bi mu déggee woyu rek la ma woolu këram ma ñëw mu jox ma teranga yu bare bare bare bare bare bari ah, te yàgg yàgg na ko def waaye nag way bi ma woy maam di Cheikh da ciy gën a bég mm-hmm. Euh, njabootu Cheikh Abdoulaye képp woo ma nag ñi wéef ma ñi orange ma ne ma moom daal ak taalibe Cheikh Abdoulaye yi mbaakol mbaakol yi moom ci la ci la ci la yi vraiment kontaan nañu ci way ba barki démb rek laa laa laa am ku ma dajal fii ci tali bi yàlla xam na ko mu ne moom taalibe Cheikh Abdoulaye laa daaw ma la bàyyi xel nag waaye bi nga woyee Cheikh Abdoulaye nag laa la bàyyi xel barki borom Tuuba retour yooyu daal am naa ko ci vraiment macha Euh, kàddu yi am na solo euh, bala ñoo dugg ci puissance 3 euh, dañuy laal tuuti ci clip bu daaw bi clip bi bokk ci clip bi nga xamante ni moom la ñu ëpp lu ñu visionné ci clip bi génn ci màggalu Cheikhul Khadim bi liggéey boobu noonu kan moo nekk ci ginnaaw waaw liggéey bi nag du Mohamed Niang rek moo moom rek la ñuy gis mhm. mais du moom rek gis nga sama gaay yi ñoom Mbarik Lo sëñ Khadim ah, ñoom Gagne Cheikh Ibrahima Bay Soppe ak équipe bi ñëpp. ñoo nekk ci ginnaaw di ay borom xam-xam. boo gisee ñu bari di rafetlu sama liggéey ñooñu ñoo ko waral. Mm-hmm. yow seere nga ci. Moussa mm-hmm. seere la ci. Mm-hmm. bi ñuy dem di defi vidéo bi sëñ Touba ñëw. parce que ni ñu programmé woon nii fa la ñuy dañoo dem réalisateur bi ñëw ni fii doyu ko. déjà li ñu waroon def mooy takk suñu bagage ñibbisiwaat. mais ñu dugg ci àll bi di xool fan la ñu war a tourné ba. sëñ Touba moo def ci sama xel ne euh, carrière yi daal ak man daal gis naa ko. maa ngi ñëw waxtaan ci Ibrahima maa moom ñu am xalaat mu ne ma nañ dem ñu dem def nga def ko mu réussir. macha noonu nii lañ ko defee. Mm-hmm. nga xam ni yaakaar naa bii mooy benn clip boo xam ne def nañ ko te defuñu reportage. Mm-hmm. dañoo ñëw rek tourné ko. sëriñ bi ñëw. Euh, daj dëpp gi. lañ war a waxtaane puissance 3 puissance 3 nag ñetti son yi xale yi dinañ ko décortiquer waaye man li may waxtaan ak yow mooy li nga xamante ni moo di affiche ku ne xam na ni bi Cheikh Géthio génnee àdduna ren la def cinq ans ci suñuy gët yoo xamante ni màggaluñ Cheikh Béthio Thioune mm-hmm. ñu màggal Cheikh Béthio ñu gis nga def affiche boo xamante ni danga cee wane sa cinq baaraam jël sa benn loxo taf ko fa fii yaa ngi delloo njukkal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina Kor Jekk Baay Lalla Fall Amad Fall Cheikh Ndiaye fële yaa ngi wan sunu sang ba bi mooy cinquième màggal ñuy màggal ci suñuy bët gisuñu ko yow ab da nga garaaw de ah yaa ngi may bëgg a jaaxal xam nga léeg nit def dara mhm. moom mi ko defee moo koy xam kaak laaju nit ko du ko mën a wax mhm. waaye ndokk ba euh, sunu borom may len ay ay gis-gis yu leer. Mhm. ak ay deg deg yu leer ba lo len gis man ci yek serigne bi. Mhm. amana sax euh, leg leg nga def mbir djublu ci dara waaye leg léeg nga def mbir la nga ci djublu sax ak la ci nit di gis du bok mhm. lolu nak day feñ toujours ci mbirum suñu borom yi. deug la waaw moy affiche bi nga wax ni deug la euh, ku ne xamna ni zikar ñi koy def ñep fi ngay tek sa loxo. mooy booy sàbbal suñu borom mm-hmm. mooy yaa ngi sama sama dégg sama sama dégg-dégg nag man ak fi ma nekk laay waxee mm-hmm. mooy boo tegee sa sa nopp yaa ngi wax ne yow déggatoo dara mm-hmm. gisatoo dara lu dul suñu borom dëgg la yaa ngi dégg moom rek ngay yëg moom rek ngay dégg loolu mooy laa ilaha illallah nga tàllal sa loxo bi nag ne nag aw ma mënuma yaa am yaa yor yaay joxe mu jox la. mooy ku sant ñu dolli la. Mhm. Cheikh Ibra nag mbiram ak Cheikh Béthio day génn mbir. Mhm. ndax ki defoon Cheikh Ibra ni mu mel moo def Cheikh Béthio ni mu mel. Serigne Saliou mooy Serigne Touba. Mhm. loolu moo waral loolu yëpp daje ci affiche bi. macha allah li nga wax it màggal nañu juróomi màggal yoo xam ne ci saayir teeweewu ko. juróomi yooyu mën na symboliser juróomi baaraam yooyu. affiche bi nag firndeel sa wax ji ndax moom lañu ci sargal ndax bu ngeen fàttalikoo bi mu defee sekkerem bi mhm. ci laa ko gëj a rendre hommage mhm. ca way woowa yaa ngi ko doon wax ajaajëf Serigne Sali woo man mhm. depuis boobaak léegi it di cinq ans macha allah dëppoowaat it juróomi loxo yi kon na ko ñëpp xaar moom it ko wéyee woon ajaajëf sëriñ Saliou man romba bu lay dalay aar ñagal ba doo yàqu doo yàqu leeti romba sa am ndam sëriñ bi sëriñ Saliou sampam du daanu bu nit ñépp booloon di sembi malaaka yeggi ne an du dem du taasam fu daanu yàlla pexem yàlla moo tiim pexem nit fa yàlla lay pexe xewul nag iñaan yaa ko wuteeg dogal ba muy xew xewoon sëriñ bi lu nit ak lu yàlla seet bi bokkul sawaaja bokkul ci gaañi sëriñ saali way kenn waaji amul mis lu jëf jaa ngi siw bu leen juum bu leen naax sëriñ saali kenn rek la seexal cër booba wàcc saawanagu bi benn la sëriñ saali woo ko wax te siw na bu leen moom bu leen fàtte fi daa wax ki moo xëy xewal ren di bernde e waayi daw si ren cant raw wi yoon rekk a gaaw yees wi am doole seex lu dul lu cant buña amu e waayi daw si ren cant raw voilà mu woyoon ko Serigne Béthio doon ko ci rendre hommage Thioune Demba Yacine Sagor Baba Yacine Sagour Alpha mi ci Balagos ñu ñaan bu baax yàlla tax ñu ci barkeem ak leeram ndax nag bu màggal xasee teru xel yëpp day dem ci euh, Serigne Béthio Mame Babou Thiam jërëjëf Abdou Saliou alors Mouhamed Niang euh, fàttaliwaat itam internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel entretien spécial la bu ñuy amal tey euh, ci page am bile ngir waxtaan ak moom ci ay projet waaye waxtaan ak moom itam ci lii nga xam ne di ko xaar di cent 3 ba mu ca jiital nag di doy na yam su ma juumoon noonu la sank ma ngi doon wax ci eh, eh, khalif ba nekk eh, daru mufti seigne sëñ on Anta ñang luner. la nga way ko way lu neex alors mo meñ na fañ koy tambalé mo mooy ci premier single bi doy yam lan nga bëgg wax fofu kan ngay waxal ak lan moko taxajuk waaw doy yam baatu wolof la bu ñepp xam sëriñ bi nak lañu ko askan. mooy ni ñu mel tey ak li ñu doon fi ñu jóge ak fi ñu egsi Sëriñ Tuubaa moo na ko def loolu moo waral ma ne diggante boobu yëpp ak li ci xew kii doy naa yam jarut di jàll feneen mbaa ngay uti leneen feneen li ma bëgg a wax mooy Cheikhul Khadim kenn la bisee fi tuba bi daw noo te jeex ñëpp gën a gëm dooru yeeg mbooloo mi ñëpp réer dama ko tënk nag ci sëriñ bi ak demam ak delu seen ci biñ ko fi jëlé diko jëlé mbacké bari diko yob ma yomba ak ni mu gën ni mu nekké ci all bobu yi nga xamni mom rek fa nekkon dafa yóotal sunu borom loolu la teunk ci way wi Mbacke Bari tund jeewal bureau ba ca Ndar Ndakaaru Mayomba ak ni muy wàccee ci waaxu musaa Seri bi ba di ko Cheikh Ibra Fall di ko dalalee Lampinaas mooy fii ñëpp xam tey muy pale bi teeru gi ko mur yi teeru woon nga xam ni ci njëlbeen xamoon nañ ni Sénégal bi sëriñ bi demee tubaab yi fi nekkoon noot nit ñi ba kenn nanguwut a yëngu kenn nanguwut a def dara kenn nangu yàlla sax daawuñu ko nangoo biral ci kaw ngir tubaab bi ni ñu nootee woon lépp nga xam ni romb tubaab rek nga ko daan xool nga daan tubaab romb la nga ko daan xool yenn bët yi sax bu ko neexu dala daan jàpp dóor la te kenn du ci mën dara ba maa ngi dégg ci sunu mag yi ñuy wax nag lii yi ñu daan dóoree nit ñi sax car liifu 44 la tudd am tubaab bi dañ daan jàpp nit ñi leen dóor carrément te kenn du att te kenn du ci dara jóge ci géej gi la loolu jeex loolu laa tënk ci way wi euh, lan mooy expliquer à chaque fois Mouhamed ñaa ay mbiram boo boo koy déglu rek da nga ciy danga ciy da nga ciy gis cosaan danga ciy yëg mbirum kaw-kaw bi nga xam ne ñun taalibi Serigne Saliou yu jamono jii loolu rek la ñu bëgg waaw. loolu nag li ko waral mooy Serigne Saliou woo ko def. Mm-hmm. ndax sëriñ bi ni muy yaree. ci mm-hmm. daara yi. Mm-hmm. day dajale xeet yëpp. day dajale saalum saalum dajale kadior kadior dajale ñep sin, bawol ñep la sëñ bi dajale ñoñu nak bo nekk ci seen biir xeetu lepp ngay dégg olof yëpp ngay dégg li mo waral chance bobu ma am ko ci samay wolofal waaw ñi nga xamni ni jaar nañu ci daara ji xam nañ ni baati olof yu bari bari bari bari ñu bëri dañoo ci mag ñi la ko wala mag maga ma koy jàngal déedéet nekk gi ñu nek ci daara ji da ngay dajek askan yëpp dangay ngay xam baati wolof yi dangay xam wolof yi xóot yi da ngay xam lépp lii nag moo indi euh, bu ñu waxee rek nit ñi ne waaw kii fu mu diggee mm-hmm. fekk sëriñ bi ci daaraam ni mu yaree mm-hmm. ci loolu lool foofu lañ ko nam mm-hmm. jërëjëf ba tey dañuy continuer waxtaan bi ñëw ci puissance 3 bi ñu gis mu nekk trois single mais dañuy ñëw ci li xam mooy suñu dund gi neex na Eh, suñu dund gu neex na nag loolu war naa mën a neex li tax nga ne sa dund neex na peut-être yow yaa ko xam wala peut-être li la sëriñ bi defal ba tax nga boole lépp ni suñu dund gi neex na. waaw suñu dund gi neex na mooy man mi ko woy sama dund neex na. ñi ma bokkal woy wi seen dund neex na ndax ñoo bokk ki ñuy woy te ki ko neexal mooy sëñ Saliou. Mm-hmm. bi ñu amee sëriñ bi doomu aadama ginnaaw ba suñu borom wàccee ci kaw suuf dafa am lu ko war. li ko war mooy topp yàlla te jaamu ko bu dee nag dañu la wàcce ci kaw suuf te xamoon lan mooy sa mission ak loo mënti am ci àddina amal milliards yi mi doonal minti milliardaire amal lépp boo xamul sunu borom sa dund mënta neex parce que doomu aadama lii neexal ak dundam mooy yàlla te yàlla jooju la sëñ Saliou def ci sunu moo tax ma ne sunu dund gi neex na sëriñ bii ci xol bu rëy na doyloo naa jëmmam ci. d'accord mais nag bëgg nañu xam exactement sëriñ bi lu la defal ba sa dund neex lool xam naa ne dund noonu la dund Abdou Saliou neexee ba nga boole ñun ñëpp au lieu nga ne sama dund neex na mais nga ne suñu. xam nga sëriñ bi defaluma man rek. defal na Abdou defal Saliou. ñoom déggoo li ma wax sànq ci yu wax ci maanaam ñooñu ñëpp sëriñ bi bokk boole defal ñoo bokk woy ndax kenn ku ci ne sëriñ bi defal na la loo mënta wax te loolu mooy neexit wi mooy neexitu dund wi am gi ñu am sëriñ Saliou moo neexal suñu dund loolu moo war a ne suñu dund neex na mën a profit lataa may laaj Moussa wala Abdou sëriñ Saliou lu mu la defal ba sa dund neex lool waaw sëriñ bi de li ma defal bari na xajul ci émission loo xamante ni soo ko wax fenn parce que ñu lu exceptionnel la ñu bëgg loo xamante ni soo ko wax kenn parce que nag ndaw ñi nga xamante ni ñoo bëgg Serigne Saliou dañuy xool ci yow te bëgg nañu waxtaan yi ñu ci duggee njëriñ daal di feeñ ba tax képp koo xamante ni bëggoon nga Serigne Saliou nekk ci loo xamante ni neexul Serigne nga bàyyi ko nekk ci li nga xamante ni moo neex Serigne waaw moom laay wax léegi rek Serigne bi li ma defal bari na mënuma koo lim day am loo xam ni luñu mëna wax la ak luñu mën ta wax waye man damay wax lima seigne salif defal lepp lima ci dakal moy bi mëne ngangal ma ngang mu sama bi jëme lolou mënu ma expliquer luma dakal lo xamni mën na ko wax lu seigne salif def ci sama jëm ci ndax xamna ni tufli gog mu tufli sama biir lolo lolou indi lepp man xamna lolou 97 97 96 97 96 diggante boobu la. ndax boobu ñu ngi ci këram gii ci jannatu ñu nekk fa xale gan ndax ñi jox sëñ Saliou seen doom sëriñ bi boo ko joxee ay gone xale yi gan lañ leen di tuddee sëñ bi dalay teral ba noppi ñu soog ñu soog a xool daara jum la yóbbu ñun nag dañoo am sensu def ñaari yoon xale gan dañoo ñëw ci këram gi ci janatu nekk fa xale gan man ak sama frère Khadim demaat këram gi ci xay gi nekkaat fa xale gan. bi ñu ne fii ci janatu nag dama amoon méttitu bañ waaye loolu yëpp li may wax rek sunu boroom mooy dogal ak sëriñ bi bu naree def mbiram waaw ma ñëw ni ko dama am méttitu bañ te waxtu wii la woon waxtu nawet la woon ma ñëw ni ko dama am méttitu bañ maam bëgg nga ñaan ma ci ndax sonoon na ma ndax waxtu wii rek la may daaneel man sëriñ Saliou ma tàggaleeg méttitu bañ barki sëriñ Saliou hmm. 97 ba léegi mosuma jàmbat dëgg waaw moo tax ma ne li ko seex Béthio di jiiñ lépp dëgg la hmm? sëñ Saliou li ko seex Béthio di jiiñ lépp dëgg la billaahi wallaahi wa hmm. li ma doon dëgg hmm. làmmiñ mënu ko wax ndax bëñ ñun ay doomu aadama lañ bëñ suñu borom moo ko bindaale nit ñëpp am bëñ metti maanaam da day dalay dal nga dem wekki wala nga dem ñu dem faj ko waaye du tàggoog yow waaye man sëñ Saliou du ko tàggalee man sëriñ bi da ko tàggaleeg man billaahi wallaahi wa taala te alburaax moom loolu sax da ko woy ci woy bi moom laa bëggoon na ñëw waxuma sax moom bu ñu jeexalee de mais wéy bu mu wéy Serigne Saliou boo xam ne lii muy wax nii ci boppam dama bëgg mu wéy ko parce que euh, day day loo xam te moom lépp lu mu mës a wéy ci Serigne Saliou maanaam moom tax na ñu mel ni man ak ñu bare bari lii muy explique ci ay jëfi Serigne Saliou ci ay wéyam lañ ko xamee mhm. woy boobu laa bu nga yëkkatil ñu rek ñu mën a jàll ci troisième Euh, parce que moom mi boo ko xoolee am na woy bu mu woy Serigne Saliou li mu li mu ma defal li mu ma defal boo ko xoolee day day ñëw ci parcours am euh, maanaam fi mu jaar ak Serigne Saliou woy wi mu nang déglu ma déglu ma tey lu ma. tey voilà mais mais mais mais jàmm si jàmm si boobu moom il faut il faut mu may ñu ko. Mhm. parce que parti boobu lay euh, mhm. euh, li nga xam ne moom la ko Serigne Saliou defal. Mhm. ba saa su bu toogee day expliquer que ni. Euh, foofee sax la jaaree ba depuis booba tey mititu bañ mu tàggali ko moom. man li may xalaat mu di ma neex bis danoo ne woon. bañ bu metti lool mu tuf ñaan leer ya dal maraw tey mu xëy njariñ sëriñ saali way ki te loolu li ci li ci yéeme mooy waaw li li ci sëriñ <laughs> bi bi ma bi ma maanaam baatin dafaa xew mm-hmm. ndax sa bëñ buy metti mm-hmm. mënoo lekk dara mm-hmm. waaye man sëñ Saliou bi ma ñaanalee ba noppi ba tufli sama biir gémmiñ moom moo jugal boppam ci client bi mu toogoon dox ba ci benn saaku bu ko waa usulul mahab xaw ma nat bul amin defaroon seen mboq ba mu ñor ñu baxal ko ngir indiloon ko sëriñ bi ngir mu jox leen ndigalu boqi sëriñ bi moo tekkil boppam saaku yi ak findi feer sama kanam duma ko fàtte mhm, ñëwaat toog jox ma jox ma mboq bi ci ku bëñam di metti mhm. ca nga waxee woon sa la <laughs> moo tax moo tax euh, euh, daray daray saayir mm-hmm. amu ci mm-hmm. boo gisee euh, léeg-léeg bu nit di wax naan Mohamed ñaan li muy wax fu mu koy jëlee mm-hmm. wala wala est-ce que li mu defoon lii mënati na ko wala nangam sàngam man damay xam li ma xam rek xam ni nit mooy mën di def dara ëllëg mu di ko defaat muy am jafe-jafe ndax xelu xelu doomu aadama la xel am xel day sonn. kenn mënul dëkk ci di di def luy mat. waaye man damaa dem ba xam ne li nekk ci man nekkatul man sëriñ bi la. ndax nag li fi jaar bari na. Mhm. man 2003 ak 2024. Mhm. du ñaari fan. Mhm. du ñetti fan. te boobu ba léegi sëriñ Saliou may suturaal. ba saa bu ma woyee. nit ñi dégg li ma woy. loolu nag mhm. ku ci gisul mbirum sëñ Saliou mhm. wax dëgg yàlla mhm. eh, yaakaar naa dootoo dootoo gis dootoo gis mbirum sëñ Saliou de mi mi mi ngi noonu muy ay jëfi sëriñ Saliou mu mel ni ba tey yaa ngi koy fësal rek ci titre bi nga xam ne moom mooy eh, troisième et dernier titre ci eh, projet bii di puissance 3 muy Serigne Saliou kenn la. Hmm. mu mel ni ay jëfi Serigne Saliou nga ñu indilaatal ci wéy. waaw xam nga dama def doy naa yem. suñu dund gi neex na def sëriñ Saliou kenn la doy naa yam sëriñ bi laa ci tënk sëriñ Touba mi nga xam ne moo waral lépp bis bii ak ñun murit sëriñ Saliou woo tax ñu am sëñ sëriñ Touba tax ñu am sëriñ Saliou sëriñ Touba tax ñu am màggal sëriñ Touba tax ñu am lépp moom laa jël woy woowu jagleel ko ko waaye nag bi ma ko jaglee ba noppi suñu dund gi neex na ci biir woy yi boo ko dégloo damay jàngale Serigne Touba moom nga xam ne moo def lépp nag moom moo delluwaat di sëriñ Saliou mii leeral ko ci ni mu doonee sëriñ bi daal di tëjeewaat ko nag ci moom Serigne bi nag li ñu am lépp yow yaa yaa ñu ko sagalee waaw way wu neex sax xam naa ni sax ñu bari way woowu dina nekk seen way man ndax parce que man way woowu mooy sama way. ah leen parce que. ñu ngi koy ñu ngi ciy a baax daanaka ñoom ñëpp. suñu dund gi neex na sëriñ bi ci xol rëy na daloo naa jamam jee ndegam yow yëgoo may yàq xeraw ma ma wax lay mbir sëru yëg sa xol neex saadatu daara yi ni ajanam gi door day fi bitag biir jëmam jee sëriñ saali woo nge ndal gaa nge ewa jam ñi yeewu leen jàpp ndal gaa ngi ku dul yàlla ëpp ma maa dem ci yéen ki leen moo may junju doy na ma wax sang bi laa gën wooloo fa mu jëm suturam si mu ma wan fii laa jëm bàyyi woo maag sago tey yaa ma musal jàmm ji mbégte mi lañu dëkkee murit xol ba day neex faw baa jël na <laughs> kon mi noonu ñoo ko dégg ndoor mu nekk euh, euh, ñetti euh, son yoo xam ni boo ci déglu rek da ngay bég lool ñuy wax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy soppee yi ñu daw gaaw abonné ci page bi bu ko defee itam lépp lu mën di dugg ñu daal di ko euh, mën en exclusivité ah, mën ko am ah mais wax nga ko sànq itam da nga ne euh, suñu dund gi neex na ma je que moom nga <laughs> moom nga choisir waaw xam nga léeg-léeg wala moom mooy sa way waaw léeg-léeg da ngay way way mhm. euh, way bii neex ñi ñii neex ñi ñii neex ñi mais yow waykat bi dafay am way bu lay neex boo xam ne sax mën na bañ a neex public bi mais yàlla dogal na man samay morceaux toujours bu génn rek dina am ñoo xam ne day nekk seen mooy seen way parce que way bi damay damay wax ak ñëpp moo tax toujours rek way bi dina am koo xam ni way bi da koy neex mais man woy bi daf man neex parce que li tax mu neex ma mooy dama ci woy ay mélodie yu différent te dama woyee foo xam ne musuma faa woyee maanaam woy naa ci gaam yu ne mais woy bi dama woyee foo xam ne musuma faa woyee loolu moo tax woy bi neex ma. d'accord ñëw ci troisième son bi je pense que Moussa brosse na ko sax muy euh, Serigne Saliou kenn la. waaw Serigne Serigne Saliou kenn la nag mooy woy bi ma njëkk a woy ci sama at waaw mooy woy bi nga xam ni damay am 14 ans laa ko déglu leen kii tax ma jóg fentu way wi di ko tuddee Serigne Saliou kenn la. kenn du moom ki ñu moom ba tey gaañi dikk leen way si kii njariñ la dulóor sang bi sëñ bu mag baa ngi mbiram tey la gën a fes daw si leen sëriñ Tuuba delsi na sañ nga noo jaay tey jindeenu ay sabadoor yaanu moom jëlal fu la neex yóbbu nu Cheikh Béthio Thioune jëlal fu la neex yóbbu nu <laughs> lan moo lan moo waral lan mooy expliquer la fekk mu xaar ba jamono gi soor a jël son boobu di ko moderniser ndax euh, man yàgg naa dégg woy bi ci cant bi boobu dañuy gën a doon sax ndaw di dégg woy bi nga xam ne même loo doon doon sax ndaw di ko dégg di nga xam ni baat yi lii la wala bokk euh, euh, aw bi lii la di nga ci am benn loo xam ne di nga ko ci téye lan moo waral mu jàpp ni que boobu jamono wala boog la moo tax mu jàpp ni que jamono gi dafa war a moderniser son boobu joxaat ko Sénégalais yi woy boobu bi ma koy woy wax naa ko léegi maa ngi am 14 ans aw moon xam-xam ci sëñ Saliou boobu gën naa nekk xale woy bi ñett ñetti ñetti bayit la amoon tey la doon xaar ba xam-xam bi ñëw woy bi soo ko yegg li moo tax ñu woy ko tey ndax dégg waaw ah, mais mais xam nga bu njëkk ba aussi ni ngeen doon wooyee ak jamono gi du benn mhm. bu njëkk ba pour sax nga am benn studio bu bu la war a mën a masteriser son mhm. ba mu jaar yoon ak moo xam ne nii nii muy ndax sànq mi ngi expliqué ci benn woykat ni euh, bëri na ñu ci wooyee te booy seetlu dernièrement projet yu mujjee moo xam ne parfois buy woy Euh, sama xel day dem ci woykat ba doon wax ni que Mouhamed Niang bu doon woykat nii woykatu jamono ñoom dañuy am problème c'est-à-dire octave yeeg lépp lu nit ñi di woyee ci règle fépp dafay tegoo ba mun a déggal Sénégalais yi ci mhm. boobu jamono euh, il faut diir que ni euh, studio bu la mun a defaral son ba nit mun ko dégg mu doon lu neex loolu ci ci nopp boobu jamono aussi amuloon woy boobu sax mosul dem studio ma mhm. dama bëri dama bëri ay woy yoo xam ni mhm. ñi ngi ma teg te yeggul ndax bu njëkk dama daan def su ma woyee benn baat rek da daan neex cheikh bi maanaam cheikh bi baat boobu rek moo ko ci daan yitteel muy fecc man ma jàpp ko foofu mhm. ba cant ba jeex mhm. yaa ngi dégg sëñ Saliou kenn la sëñ Saliou bi jug alu fecc foofu la daan téye woy ba woyu jeex maanaam man bu njëkk noonu laa daan woye way daawul yegg mhm. moo tax samay répertoire way yu bëri dugaluma ko studio damay taw ba mu yàgg rek comme ci moment bi ma génn benn daal di koy wax génn ko woy bi nag noonu la demee. incha allah euh, lu musta am euh, ci koo xamante ni day tagg yonent bi di tagg Cheikhul Khadim di tagg Serigne Saliou Mbacke nga génneel ñu trois titres yoo xamante ni euh, boo ci déglu rek ne moo dàq morom wa mais Mouhamed li ma gën a impressionné ci waxtaan bi mooy li nga way diggante 2003 ba nii amul dara loo xamante ni fàtte nga ko ci. loolu lan moo koy def te lii yombul hmm. nga toog ñu ne la wayal ñu way bii nga koy woy hmm. te artiste bu ko ci def fàtte nga ay moo te yow li ngay way lépp impact ndax ñun dañuy déglu musique hmm. lan mooy def loolu ci yow waaw loolu nag euh, yombul nekkul lu nekkul lu yomb parce que 2003 ak léegi yàgg na at yu bëree bari la am na ku ma déy sax ne doo répété <laughs> am na ku ma day sànq ne ma Mouhamed billaahi du répété. man loolu daf ma yéem loolu. man ku ma wax ne sax projet ah, yi mu dëgg la waaw loolu moom waaw loolu moom dëgg waaw loolu moom dëgg la depuis ci Masaalikul Jinaan sëñ Muntaxa dañuy ñëw rek dajaloo dem studio génn ko. Mm-hmm. waaw macha allah. li ci gën a neex mooy bu koy live tamit <laughs> maanaam ku du répété moom booy live des fois nga bàyyi ay mots des fois nga fàtte euh, gars yi fàtte fàttali la ca ginnaaw waaye mbóot bi moom mooy. na mu ko woyee noonu la koy live te live bi sax mooy daax na mu ko woyee woon c'est-à-dire bi nag bëgg nañ koo xam réellement quoi naam Serigne Saliou defal na la waaye la nga defal Serigne Saliou ba mu may la lii ma am nii tey jii ba bu màggal tero wala sax même bu dul màggal da ngay gis yenn ci ay événement la ñuy c'est-à-dire que ñuy woo mooy Mouhamed Niang te bëri na fi ay ndaanaan yu fi nekk choix bi nga xam ne porte nañ ko ci yow nga sax à dire ba boo ñëwee yow di na leen di bégalee Ah, dafay koy sax sa njort. sunu borom day fay coono. te nag wax dëgg yàlla lii may def dama ciy sonn bu weesoo li sëriñ bi def damay sonn ci sama liggéey ndax bari na ci way yi ñëpp yi dégg bari na ci way yoo xam yëpp guddi laa leen bind. nit ñi dañuy nelaw man ma toog di bind ba mu leer ma soog a teg tëdd yaa ngi dégg te yoon wi ñu ne mooy yoonu murit bu ñu naxante bu kenn nax sa bopp. Mhm. sëñ tubaa boo ko bëggee way dangay am xam-xam. xam-xam moo koy way te xam-xam boobu dafa am lu koy maye. li koy maye mooy jëf mooy liggéeyal sañ Touba. sëñ Touba mhm. boo ko dul liggéeyal doo am xam-xam boo mën a wax ci moom. ñun nag Serigne Saliou dimbali nañu ba ay murit lañu yoo xam ne ñëwuñu rek ni ay murit lañu waaye dañuy liggéeyal sëñ Touba. Mhm. ni may gisee nii damaa yor daara. yor ay mbolo mo xamni Serigne Cheikh mu Serigne Saliou moo ma ak ñom ñuy liggéey di jëf. muy wa génération Serigne Saliou. ñuy joxe senu alal. di joxe addiya di saari di senu Serigne di dem xel kom di liggéey serigne Touba. te serigne Touba fi la wo Mouride te man fofu la ne motax nak naam sëriñ bi mi ngi may dimbali waaye nag damay def li tax sëriñ bi di ma dimbali mooy li sëñ Tuubaa woote mooy murit bu ko liggéeyal afistuma sinat an yi defatiri fala taxun an xidmati bi fatiri ku ko liggéeyal mu def ci yaw xam-xam bu ànd ak leer loolu nag na ko ñëpp xam inshallah Abdou li nga bëggoon a laaj ci sànq moom mooy des fois woykat way nga naan ko kii de bu ko woyee woon nii wala bu ko tegee woon nii wala bu ci àndoon ak nit de dina gën a neex waaye moom da ngay déglu woyam doo ci am leen loo ci commentaire. maa ngi ci doon waxtaan ak Marick ma ni ko lu tax bu màggal gi teroo Mouhamed du def ay featuring parce que gis nañ sa son yëpp euh, yow da nga ciy way yow rek yaa ciy way euh, le pourquoi nga porte choix bi ci yaw kese ngay way euh, wala gars yi dañ laa déggul. waaw loolu nag xam naa dafa jotagul. Mhm. ndax wax dëgg yàlla ñi mu koy wax bari na. Mhm. ba ci ren rek moo ci mujj. ma ci profito di ko di ko di ko di ko wax. muy Wally Seck di ko jéggalu bu baax ndax li ma wax Youssou Dieng defe naa wax nag ko mooy projet bi dafa am ñu ko ñu ko def loolu moo tax waaye ñun suñu yéene sax romb na ci woyandoog moom ay way parce que xam nañu suñu bokkum taalibe la te ku bëgg sañ Touba la ak ñeneen ñoo xam ne ay artistes lañ ñu moom dañu koy bëgg ba ci Sidi Diop euh, ñëpp bu ñu sañoon defandoog man parce que loolu lépp li muy tekk rek mooy bëgg gi bëgg sëñ waaye dama jàpp ni yàgg xam naa ni loolu dina am. Mhm. xam naa ni dina am waaye euh, fii mu ne nii ci ay projet jàmbur lañu la ñu nekk projet bi dafa am ñu ko moom. Mhm. ma ci profité di ci remercier Awa Ndiaye. Mhm. di ko sant bu baax a baax ci taxawaayam ci liggéey bi. Euh, ba ci suñu mbokk waykat yi nga xam ni ñoo bokkandoo di way. ñëpp am nañ ñu ci ciblé ñoo xam ni. njort naa ni feeg déwén. dinañ def ak ñom vitrine inshallah allah macha allah li ñu cërele won ci waxtu jeexna xana ñu ñëw ak mom touti ci fi nga xamanteni fofu la bëgg jëm parce que waykat yag na wote grand théâtre waykat na wote woote waye gisa gisaguñ ci ñi nga xamante ni ñooy tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yóbbu ko Zénith wala fu melni fi nga xamanteni modi Bercy Moussa ñu def tour de table vite fait ñu ñu daal koy libérer parce que dafa wara dem studio mom voilà li may li may wax fofu rek moy gën

yaa ngi ci yi nga xam ne waajoon nañ ko mhm. Covid bi ñëw dugg man am na lu ma ci jot a xam ba mhm. ba amul mhm. est-ce qu'on peut espérer bientôt incha yooyu la projet yu ni mel mu am incha allah waaw déjà commencé nañu ko ak président Mbarick am na ay promoteurs yu muy waxal yu nekk Italie te xam naa du yàgg dara dinañ dinañ tënk lépp man bu ñu màggalee ba pare dinaa dem États-Unis incha allah dinaa fa dem te loolu moom mu fay yóbbu parce que bëgg nañu liggéey bi ñu bokk kook suñu mbokki taalibe yi nekk ci ci ci àll bi mhm. ndax wax dëgg yàlla euh, fu ñu mënti nekk ci àdduna bi mhm. dañ koy dund te dañu koy yëg mhm. waaw moo tax daal xam naa ni incha allah nañu ñëpp xaar acca balaa ñuy tàggatoo danga nga tàmmal li xam ne mooy ñi xam ne ñoo la bëgg di leen jox rendez-vous chaque année lendemain màggal maanaam bu ñu màggalee ba sa suba ga ndax mën nañ la faa xaar waaw euh, ñu bëri sax ñi ngi laaj question boobu parce que jàpp nañ ni du du am ren fekk daaw moo tax. Mhm. te daaw li ko waral mooy ku ne xam ne ni nawetu daaw dafa taw taw bu bari. Mhm. Mhm. ba fi ñu ko doon defee moo am ndox. moo tax defewuñ ko. defewuñ ko woon daaw. mais ren incha allah waajal nañu ko bu baax te puis dinañ ci ànd ak ay partenaires. dinañ ci ànd ak Sen TV. dinañ ci ànd ak euh, CNM. dinañ ci ànd ak ETV. Euh, e Sénégal 7. dinañ ci ànd ak Sénégal 7. ma ci profito di ci. Euh, remercier grand jigal mhm. xam ngeen ko mhm. Mhm. muy grand bu baax moom projet boobu yëpp ci loxoom la nekk di wax ne gars yi bu ñu ñëwee màggal dinañ gis loo xam ne mosuñu ko gis ci technique ci sono ak lumière ak lépp ndax bii yoon moom dañu ko waajal parce que daaw moom li ma ci dégg moom ëpp na <laughs> moo tax ren daal moom ku màggal ba noppi moom na nga xam ni na ñëw ñi ngi koy defee nag ci boulevard 30 bi sama kër mooy trente ndongoloo rek mhm. ñëpp miin nañ ko ci janatu mhm. trente trente ndongoloo bi mhm. ren foofu lañ koy defee na ko ñëpp waajal ñu ñëw ñu bégal leen mu nekk tàggatoo bi ndax ñëpp xam nañ ne màggal gi teeru la ak dal ak gunge boobu mooy dama alburaax dégg naa sax bu ren bi euh, taalibi Cheikh Béthio yi cantaaku nii la ko jagle waaw ah, xam nga fi ñu koy defee janatu la te euh, lendemain màggal maanaam man maa ko njëkk a def ci jannatu mhm. biñ koy mujjee def dañ ci doon rendre hommage suñu benn mbokku taalib boo xam ne moom moo ko créé woon muy Baba Tente mhm. nekkoon jëwriñu Touba foofu sëy nii ci HLM mhm. Baye Gaynde moom moo ko créé woon ak waa lycée Blaise Diagne yi doon ko defee fiñ daan dal man maa leen ko daan wayal mujj gi nag bi Baba décédé ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokk ay ngërëmam ak i leeram mm-hmm. année boobu mm-hmm. defuñu ko année bi ci topp ñu def ko woo ma ci mm-hmm. beneen année bi ci topp gars yi defuñu ko ci laa ko jël indi ko sama buntu kër bi ma ko indi sama buntu kër nag xaju fa ci laa ko yóbbu ci bayaal bi nekk sama ginnaaw kër affaire bi dem nag ba ëpp ñu loxo waaw loolu nag loolu yëpp jannatu la ca daa ko ni ñoom ñoo ko mën nañu xaar ba tey rawatina say soppi nga xam ne ñoo fekk baax Gambie wala Maroc wala Kaolack Euh, na Mouhamed na mu fa daan ñëwee dafay continuer di ñëw foofu est-ce que ñu ngi Mouhamed mi ngi envisager itam def tournée ci réew mi naam sa euh, bët weesu na foofu mooy génn réew mi dem comme ni ko Moussa waxee waaye est que itam yaa ngi di bàyyi xel. waaw bu baax déjà ñoom ñu ngi communiquer ak Mbari waaw muy waa Maroc yi ak waa Gambie parce que ñu leen defaloon daaw dañ cey gis seen bopp ñu bëgg koo defaat. ñi ngi wax ñi ngi nekk di waxtaan na ndax ñoom mois de décembre lañ ko bëgg te décembre ñi ñi bëgg a def Italie décembre lañ ko bëgg mhm. moo tax loolu daal dinañ xool niñ koy niñ koy waxtaanee ba ñëpp man mhm. cee gis seen bopp incha allah mhm. voilà li ñu cërale woon ci waxtu jeex na Mouhamed yaakaar naa le dernier mot yow lañ koy bàyyee nga wax nu euh, projet yi naka nga ko fas yéene tasaare ci réew mi ba sénégalais yëpp jot ci ak waa àdduna ak ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci ci ci ci production bi ak ci combat bi yëpp Wow, sant yalla bu baax ak Serigne salim mbake ci dimbali gi mu dimbali ba ñu am amal jotaay bi mhm. mu taru lol kaddu yi sell lol macha allah am rafet ndort ci ni eh, li ñu ci yene lepp suñu borom matale nako mhm. may sant nak bu baax bërëb bi ñu nekk di euh té ñuy samay mhm. borom bërëb bi di cheikh di sama xarit di sama frère di nit ku baax maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex ba mu ubbi ko fépp ci Sénégal. Mhm. maa ngi sant bu baax équipe technique bi. Mhm. sama staff président Mbarik Ibrahima Baye Soppe Cheikh mi nga xam ni fu ñuy voyager moom mooy mooy dem def technique bi Cheikh Grand Théâtre ñëpp xam nañ ko. Mhm. di gërëm Seigne Khadim mi nga xamni moy sama loxo nday jor di gërëm ngañ di gërëm ñëpp ñi nga xamni ño ñoo nekk ci ginaaw Mohamed Niang Diara mi nga xamni moo fi yónnee léegi ay matériel am mhm. ñëpp xam nañ sama diggante ak moom mhm. ak staff bi ñëpp ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm Modou Gueye héritage mi nga xam ni man euh, namatuma yére bu rafet mhm. sol moom la at yii yëpp lépp lu ma sañse Modou Gueye la te du sama dërëm moo ci dem damay taw ba mu yàgg rek mu mu mu mu yónnee waaw di di gërëm aussi euh, design pro mi nga xam ni affiche yu rafet yi mm-hmm. gis nañ ni mm-hmm. ñëpp gis nañ ko moom moo ko def di xale bu yaru bu mën liggéeyam mm-hmm. euh, ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax suñu wayjur sama wayjur bu jigéen lii lépp moo ko liggéey lii lépp ab liggéeyam maa ngi koy sant di ñaanal suñu borom yàggal ko fi santu ngi sante sama papa mi nga xamni ne moo ñu teg ci aw yoon nandal lu Serigne saliw mun ñun moo nu jox Serigne saliw mhm. li lepp gor gui la ñoo koy ñaanal mu yag fi tewer ma ngi sante sama sœur di santu sama frère mhm. di santu sama soxna mhm. di gëreum ci jappalé gi mu ma jappalé ba yombal ma liggéey bi ndax yombul inshallah di ñaanal sama dom di ñaanal samay bokk. Mm-hmm. waaw Serigne Cheikh mm-hmm. di ñaanal samay bokki taalibe mm-hmm. di ñaanal Sénégal gépp di ñaanal àdduna bépp ñaan màggal gii ñu dëgmal lépp lépp lu ñu ci mbébét ak lu ñu ci yéene yàlla na sëñ Tuubaa nangul lépp ci barkeb Serigne Saliou Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh asalaamaaleykum gi kay maa lay wax nga wax asalaamaaleykum parce que dafa am nu muy demee voilà voilà euh, alburax kàddu lay doon jërëjëf Abdou kontaan bu baax bokk ak yéen plateau bi wax dëgg neex yàlla tey moom euh, euh, euh, mbégte feeñ na waaye itam xam-xam feeñ na di la gërëm bu baax yow itam ci sa élégance waaye itam ci sa éloquence merci Moussa yow itam bég nañu lool ça été vraiment plaisir ñu bokk yow ak plateau bi fia di sama jigéen moom itam sa lool ci man ma koy gërëm bu baax Mouhamed Niang Niang baalu si mu cërë ma jigéen Niang ma kuro fa binte nanga mi thieli bang ah xaritu sama DG ba euh, moom itam mu mu bëgg la ah, sama kilifa <laughs> sa kilifa kon nag suñu kilifa <laughs> ñu koy gërëm bu baax moom itam di la ñaanal yàlla suñu borom sàmm la aar la euh, barkeel liggéey bi musal la nu musalee maam ci màggalu Serigne Touba gi jërëjëf am ayca bu baax a baax a baax toogoon duñu seetaan waaye aussi di remercier Mouhamed di ko ñaan yal yàlla wéral baat bi lu ñu nekk ay présentatrice rek ñun dañ koy topp ñun kuy woy Serigne Saliou dañ lay topp wala tuuti ko moom ndax man génération Serigne Saliou laa bokk xanaa kiyaa dama cee génn rek ne ma ndax doo ñëw moo tax ñu génne ma donc di la nuyu yow Abdou saaliw Moussa Alboura mon frère ngeen nekk ay nit yu baax ndax bu leen neexoon ngeen xooli beneen ku ma gën a macha allah mais da ngeen ne ma yow ñëwal bokk ak ñun kon maa ngi leen nuyu bu leen fàtte nag image yi ñi si ginnaaw petit papa ñi ma xamul seen tur ñoom ñoo fi jaar di leen wax jërëjëf di wax ne man daal maa leen di ñaan na ma may lim ma defal rek man moom boobu laa bëgg mu tëjee ko waaw ku nekk am ngeen choix nag bàyyi leen ma sama choix. sëñ maa ngi kontaan bu baax a baax ci daje gi. Mhm. di gërëmaat encore une fois de plus di ko féliciter ci projet bu diis bi nga xam ne tegaat na ko ci loxo sénégalais yi nga xam ne moom personnellement comprendre que dafa comprendre que ni. mbir mi léegi devoir la ci moom pour muy euh, bégal sénégalais yi te di ko teg ci yoon tout comme ni mu ko defee mhm. cette fois ci donc di ko gërëm di la gërëm yow également yow duma la gërëm parce que yow sama yow yow yow sama lépp nga voilà yow sama référence nga mhm. dañuy teg ci yoon bu baax a baax alburax aussi moom dama koy dama koy séen rek voilà di ko ree tellement que dafa mun tooñ ba pare mun aussi li muy def te nit ñi bàyyi ko xel bu baax a baax ci li ñuy defandoo ñu ñëpp voilà ñëpp respecté ko ci di ko gërëm bu baax fii yooyu également dañ lay bàyyi yàlla voilà suñu jigéen nga te également da ngay déglu ci ci ci conseils yi ba noppi di ko jëfee comme comme comme comme il le faut donc di gërëm également mbaari parce que sonal naa ko booy seetlu Mouhamed dafa waxoon pour ñu coordonner ak moom dama dem ba benn moment sax dama doon rus ci message bi tellement que eh, moom bëggoon na mbir jaar yoon ñun également dañu bëgg jaar yoon pour que bu affaire yi génnee rek sénégalais yi ñu mun leen fekk ci jàmm aussi eh, donc ñoom également ñu kontaan ci li ñu leen jox donc di encore une fois plus équipe technique bi di jox ñëpp dig daje di leen ñaanal yoonu màggal jàmm incha allah ngeen jëf voilà euh, c'était tout pour aujourd'hui ñu doon tënk waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Mouhamed Niang moom Cheikhul Khadim moom Serigne Saliou Mbake. di wax képp koo xamante ni yaa ngi seetaan li nga xamante ni moom lañ doon def lu ci dëng ngeen xamante suñu jëmm ju xeebu ju yéemu ji la lu ci baax ngeen xamante ni mbiru sunu borom la waaye bëggoon nañ mu gën a euh, parfait li nga xamante moom la ñuy def di ñaanal ñëpp jàmm a teg loxo def yàlla bu la benn morom raw yéen tamit di ñaanal ndax euh, bu a bañ a porter seen choix si man mm. ndax ay xale ngeen ngeen bi ko ci ci yar ak ci teggin euh, mbaarig aussi ci yombal bi nga xamante moom la ñu yombal parce que avant ñuy commencer def nañ benn débriefing bu am solo mm. di ñaanal équipe technique bi ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw ñëpp doon ñu bàyyi xel Mouhamed fi mu toll nii yaay tëj yaay xool lu la neexee nga tëje ko bu la neexee nga tëje Serigne Mountakha bu la neexee nga tëje Serigne Saliou waaye daal man boo ma yóbboo démb ma jël <laughs> en tout cas maa ngi leen di remercier bu baax uh-huh. di sant Moussa Sarr mi nga xam ne lii lépp euh, xalaatam la uh-huh. moom cofeelam ci man ñëpp xam nañ ku am yéene liggéey bi jëm ci kanam te loolu lépp li ko waral mooy Serigne Saliou muy nit ku baax ba ma ko xamee ba léegi nii laa ko xamee nit ku yaru ku am taalibe ku bëgg liggéeyam ñi ma mën a seere ci moom noonu laa ko mën a seere ci yow ab Saliou bi ñuy def vidéo bi noonu nga bàyyi sa yitte ñëw topp ñu ba ci àll bi ñuy wër kon maa ngi boole cant gi di sant Fia ah xam naa ñi ngi soog toog mais macha allah euh, kàddu yi rafet na am na solo yàlla na sunu borom barkeel kii moom sama xarit la mhm. PDG moo ñu bo moo ma boolee ak moom mhm. mooy Yankooba di sama mag di sama xarit mhm. ñu koy ñaan moom sunu borom yokk ko di gërëm ñëpp suma ma sax jotaay bi du jeex parce que waxtaan bi daan neex waaw waaye nag yoon yamul ci benn waaw déglu leen tey ba ma way yàlla buur bi di boroom sunu mayi munu may gën lu nu wuti wooni feneen bu nu santul gorewun yaaramu sëriñ saaliwu sëriñ Béthio yaa di jaamu sëriñ saaliwu allahu sëriñ Béthio ak njamtul dafa rëy fa yàlla buur bi di boroom Mustafa ba ñu ne ko abu ji boobee la di jaam jaam googee nga nu wax max waa màggalu 2006 yaa di jaamu sëriñ saaliwu ga la neex lool allahu wàccu suuf teewu la tiim ñëpp yaarawu ku ne cuun yow lan wax fa ne góor ma su dem jërëjëf ki la ëpp daraja fa buur yàlla yi sëriñ saaliwo sëriñ beecoo seexu sëriñ saaliw allahu ku la gis dem aljana ku la xam dem aljana yërmande teewu la yaa war a wax wootel sang bi Sénégal ñëw leen jëbaloor nga la ngërëmul yàlla Seex Béthio ko yore allahu ngërëmul cant gi rek ko ko ñor joyalal kii ka jogo jëfu lu mu rëy rëy moom la ci doyloo Seex Béthio Thioune su mu daara yi daan opito ma ca xel ko Serigne Béthio di amiru Serigne Saliou allahu bokkaloog ñi xaarloo yàlla rek ndax julli it yàlla moo moom xel kom moom it mooy kii sàkk nit xam googa may juge soowu dem xel kom julli it tax jaam ñoo ñamu boppoo yaay seen njiit allahu tax jaam ñoo yaay seen njiit <laughs>